ban ñëwee man fekk naa sama place nii lakk ba jeex waaye boobu am na lu bëri bëri lu fii loo xam aguwul waaye nag boobu sabar yi ak seeguñ ba ñu ak seeguñ loolu moo tax lu bëri bëri jàll waaye nag jabar bi ñëw amuñu fuñ jaar parce que ñoo dem dañoo góorgóor ba agsi rek macha allah seen liggéey wax dëgg yàlla waaye nag yàlla dogal daal macha allah macha allah macha allah mu ko ba ma ñëwee gis sama place lakk dama yàlla xam ñun moom ay taalibe Sëñ Tuubaa a sapeur moom macha allah sapeur moom macha allah jàmbaar lan trop jàmbaar moo tax vraiment daal ñoom ñoom daal marché spécial ñoom na jàmbaaran daal macha allah waaw xañ na marché bi xat na xat goo xam ne si xañ na lool loo gis lu nekk rek àpp la xañ na mën nañ fa mën nañ fay jógee place yeeg yi wax dëgg yàlla yëpp lakk moo déem rek li ma wàccee si bagage presque wàcce naa valeur bu six noonu la lakkee ak frigo yi lépp yàqu na yàlla mooñu ko joxoon moo ñu ko xañ bu dul woon yàlla du lakk man loolu laa gëm